tànk jëm naaw buñ sant yàlla julli ci yonte bi sant suñu ñaari waajur yaa am naq rek tiis rek dal suñu kaw métti na lool ndax man mën naa ni ñu fi jógee ñëpp talaata ji jëwriñ jooju sëñ Cheikh Diagne ak sëñ Bassirou Fall ñu ngi déggante téléphone di waxtaan lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ba ni ñuy déparé ma nekk Dakar man mii di wax yow nii de yàlla xam na ni bokkoon naa ñu war a dugg cooto bi mais daa fekk ma nekk Dakar am lu ma tee mënu maa dikk ma woo sama benn xarit bu ñuy wax Fallou Mbaye ma ne ko léegi demal nga jël sama place ci la deme dugg ci oto bi jël sama place. dama tëddee guddi gi bi ñu déparé ba ñu déggante téléphone daal tëdd naa tëdd sama oto mënu maa nelaw ci laa mujj obligé jël wóor oto bi quatre fois sama yaram yi métti rek xaw ma soxla xew bi ma toogee ci bit daal ba mu yàgg dugg sama oto rek téléphone bi appel yi dàq comprendre ma ci lañ woowee dama gars yi def nañ soq. ma jaaxle nag aw ma kenn ku ma mën a woo ci laa mujj a fexe ba ay 4 heures du matin ci laa mujj a jot suñu jëwriñ ji mu expliqué ma kaa bi mu demee lépp fekk ma bàyyi sama to Dakar démb gont daal di ñëw waaye daal ñi nga am naqari ci soo xamante ni surtout suñu jëwriñ mën naa ni ñi koy jooy noppeeguñ ndax mën naa ni comme ni ko gars yi waxee rek yëfi jàmbur moo ko gënal yëfam war na Serigne Touba bañ nag ba àjjuma ji bu mu see yëndu fii sax daanaka nga xam ne moo xale yu ndaw yi ñoo def ci koñ bi su ma ko woowee téléphone mu a ma ah man de sawaay maa ngi nii ci kër booy yàlla xam na ko ba ci gis nga rek lañ naan lu suñu borom dogal la kenn mënu dara muy kër gi baas bu xonq bii ngay gis nii jëriñ ji fa jógee muy sëñ Maam Bàcc ya waaw foofu mooy seen kër sëñ Maam Bàcc yàlla dogal ne moom musa dem poroxaan wallaay lancim biñ musaana wax mu ne yii poroxaan day sogi daa bëri du ma dem ren xel comme la ko fekk maam sànc mu bàyyi fa lépp ñëw wallaay lancim moo taxawal néeg bii nii ñii dem nag dem nañ ba pare desuñu lu may ñu ñaanal leen njëggul suñu borom ak yërmande waaye ñi nga xam ne dañ dese ñu soxla ay taxawukaay te kenn ku nekk xam ne ne jamono ji ni mu demee hôpital mu boo fa nekkee mën naa ne li fay lépp xaalis a koy def ñenn ñi ñu ngi hôpital benn jëwriñ ji ki nga xam ne moom laa joxoon sans place muy sëñ Fallou Mbaye seen crédit bi soriwul dara tey suba rek manqué woo mais daal sonn na daal sonn na ba fa sonn waaw sàkku nañ dimbal daal ci ñoom ñi ci nga xam ne ñoom la fi yàlla bàyyi ak nu mu gën a gaawee ñu jàppaleen bañ mën a amaat seen wér-gu-yaram ndax moom mi fii tey suba rek jot naa ko mu ne ma daal mën naa jóg mais pour ma dox problème la sama yaram yëpp ay métti dañ kaa loon ordonnance defal ko ay rajo bindal ko benn papier na ko pour su ñëwee Touba fii daal ñu yóbbu ko ci hôpital ñu xool ko mais tey suba daal ko mais ba léegi daal man la Serigne Touba Kébé mm-hmm. bokk ci daayira Subul Salaam mm-hmm. doonoon vice mm-hmm. président bi président bi ci soog bi la bokk yàlla suñu borom moom ko ci yoon waaye ñu am ci naqar ak bu métti daal te xam ne rek lu ñëw rek ñu jàppe ko ne rek mbir yàlla suñu borom la soog bi mu amee ay presque mine bi treize personnes ñoo ci wàcc soog bi fan la fekk yow soog moom mi ngi ma fekk Touba man mhm. mais information bi moom fii li ma fekk waa suñu nga am nañ démarré waaw màggi Touba la yemoon ay seen mhm. mhm. yàlla suñu borom moom leen ci yoon bi waaw yàgg nañoo dem moom année bii rek lay doog am daal. Hmm. ñu ngi koy naqaru daal di leen ñaan yàlla suñu borom. Hmm. yërëm leen te xare leen àjjana bu baax a baax a baax. Hmm. maam yëf yi bi ñuy départ fa laa ba gannaaw suba. mais bi ñuy départ lépp sama kanam ñoo doon feesee ñu jël bàkki tubaab bi ñëwee ci la yeneen booy yu dugg mooy booy def soppi. ñu fi départ ay 22 kon ñaari oto lañ woon ñaari oto lañ waaw benn minicar ak benn bàkki tubaab. ñoo jillante woon wala. non non jillante woon bee dafa yàpp fees dem lii tamit rawante ni 30 minutes daal. rawante nañu. bu ngeen toogee dégg ñoom ñëpp ñoo bokk sa quartier bu ñu nekk. waaw bu ko toogee dégg loolu nan la leen def. waaw benn chauffeur boo xam ne fii la dëkk soriwul suñ gannaaw moo doon wàññeeku romb si yoon bi am na benn baag bu sori bi ma ko waxee nag fekk ay minuit man mooy taxawal foofu si tali bay ñibbi si bu baax ma woo wax ma ko. bu ma wax ma ko Sane ah kon te nee bi mu ko laaj ne ko côté Alonga la jugee may woote nag ma jël numéro gars yi ma woote ma ma ko jot. bàyyi minu saa dem yeesam yeesam waa jëwriñ di wax ko loolu tamit ñuy àndee di woote di woote bàyyi une heure si lañ jot ñu jox information bi de booy yi mm-hmm. rek te am na ñoo xam ne tamit ñaa nga fa di sonn lool ñooñu tamit ñu dimbale leen. Mm-hmm. bañ mën a génn si jafe-jafe yu ne muy quatre personnes yi. quatre dañoo sonn lool. waaw dañoo mm-hmm. ñu dimbale ñu rek. ndax am nañ taxawaay bu mat. quatre personnes yi. donc mm. seen taxawaay moom des na. des na lool. lan ngeen sàkku ci ñu fexe leen a taxawu ci ñooñu. waaw dimbale leen rek ba lépp lu war si ñoom. Mm. ñu def ko bañ àndaat ak seen saw ndax sonn nañ. Mm. sonn nañ trop loolu la ñuy ñaan. Mm. lii moom métti la daw yaram ndax affaire bi ñu ko yëgee suñu faar yi moom moo yee wax ma ko ki yéegoon woo ma ne ma dama dégg oto soog tubaab bi daa def soog mais ñu ngi woote juruñu si laa jóg moom di woote di woote juruñu si laa woo ku ñëw ci mbàkk tubaab bi ma téléphone sonné chauffeuru ambulance bi jëli woon gars yi ma ne ko waaye eh, borom téléphone mu ne ma oto bi di wax di yàlla suñ bi dañuy def sot ma ne ko waaye eh, borom téléphone borom téléphone mu ngi fi ma ne ko am nay am nay dese wala mu ne ma sur le coup yaakaar naa huit ñoo ci wàcc ma ne ko waaw ah, mu ne ko waaye borom téléphone mën naa koo jot mu ne waaw ah, mën naa koo jot ma daal ma koy jox ma wax ak moom mu ne man sama loxo moom par ma ne ko waaye sonn mu ne ma noonu sonn ma ne ko dese yi mën nga wax mu ne ma carrément li ci dese bëri na mais <tsk> mënu ma la ko wax si laa jóge fii ànd sama gars yi si guddi gi ñu dem Njaaréem ko njëkk ci lañ bokk bañ demee tamit gis médecin bi ñu expliqué ñu nu mu demee yëpp ñu ne da ndax gis leen instant yi du yomb si lañ ñoo bàyyi ma dugg gis booy yi nga xam ne jot nañoo blessé ñu gis naa leen wan nañ ñoo ban gis leen ak ñoom ñu mën a waxtaan ak taw foofu ne ko toog ci bunt yi yi seen i ñu woo ñu ñëw ñu ci des ñu yeble fi ñu taxaw nii rek am na ko fi wàcc kii moo ko fa représenté moo ko teewaloon vraiment naqar nañ ko trop waaye ñenn bokkuñu fu ñu nekk fi ñu leen yóbbu nag ndax ñii ñu ngi daaru salaam ñenn ñaa ngi daaru ma naan ñenn ñaa ngi baax yi mhm. mais ci koñ bi lañ yewoon doo la ñëpp benn koñ bi lañ bokk ñun ñëpp benn koñ bi lañ bokk waaw ñun daal métti na daal métti maa ngi ñaan ñi nga xamante ne ñoo fa des ah ñu gën leen bu baax a ndax am na ci koo xamante ne sonn na trop ndax bii ñëw ñu ngi ko bàyyi woon réanimation ba ñu fay jógee ordonnance yi bëri na te doole ji demul noonu su ma sañoon dal wax dëgg yàlla lépp loo xam ne mën nga cee jàpp képp kuy dimbale da ngeen képp kuy dimbalee rek képp koo xam ne da ngay def te yàlla tax rek nga jàpp ci te xam ne affaire yi wax dëgg yàlla métti na tiis na trop trop trop ndax lu toll ci treize personnes mën naa ne douze yëpp bokk benn koñ lu ko gën a métti amul te ñëpp ay ndaw lañ su ma jumul ñett rek ñoo ci am soxna mu jëwriñ ci ak ki mbokkaloon gànnaaw rab yi ñaar ñaar wala ñett lañ muy jëwriñ ji nga xam ne mooy doon jëwriñ mi nga xam kenn la woon tamit si man bàyyi fi benn tuut tànk kee bàyyi fi ñetti tuut tànk xam nga loolu la ñi ci des ñëpp kenn amul soxla. te ay tànk la métti na trop waaye nag sant yàlla ndax suñu borom ay mbiram xëy nii la ko dogaloon ñi ci képp ku desoon ci koñ bi wallaay mën jëm Porokhane moo fi mooy jàddi fii rek mbëkk la nga xam nga sa bis moom li wax rek saa yoo waree romb sa bis rek mooy indi waaye lépp nañu delluwaat suñu xol suñu xel suñu borom te xam ne suñ borom ñooñu ko ñooñu ko indi loolu ñu nekkoon nag ñenn ci koñ bi ndax jëwriñ ñoom kenn la woon koo xam ci koñ bi wallaay lancé mënatuñ koo am ndax ndax yëfi jàmm moo ko gën a léefam maanaam ku mën de xewle ci koñ bi xool ci xale xool mag xool ndaw maanaam yëfi jàmbur moom yëfam la koy mu moom ñàkk nañ ko xam ci àdduna dootuñu ko am la woon ci ñun kenn la woon ci ñun koo xamante ni wallaay lancé ñu ngi koy jooy jooy yoo xam ne xamuñu mënuñu loo mënuñu sax mënuñu sax expliquer lépp jërëjëf wallaahi ah, moom moo ko yëgee moom wax dëgg waaye nag damay dal di génn indiwaat yàlla sama borom ak dogalam ah ñi nga xam ne ni tamit mooy kii ñuy wax àll Diouf moom laa jëkk a dégg moom a jëkk woo ba ma wooyee àgg na maa moom ne ko ngeen toll ñëpp kii na ma daal góor nga góor laa waaye bare nañu belees ma ne ko ma ne ko xuma ñu faatoo tax may wax mu ne ma am na ci de ma dem tuddaat yàlla suñu borom santaat yàlla te xam ne lu am suñu borom ah ma ne ko am na sama doom Fallou mu ne ma mi ngi biir ma ne ko ndax mën naa koo dégg mu ne ma xaar ma laaj docteur bi ginnaaw neex tuuti ma coupé neex tuuti mu woo ma danañ ma koy jox moom Fallou ma wax ak moom ma laaj ko mu ne ma sama loxo de mooy metti ak sama tànk ma ne ko da ngaa dama mu ne ma déedéet ma ne ko loxo bi daa dama mu ne ma déedéet ma ma dellu santaat yàlla xam ne mën naa gën a metti hmm, gën a metti waaye marqué na waaye nag lépp da koy dellu suñu borom hmm. tabaraka wa taala ak ndigal li nga xam ne moo ko yëkkati woon hmm. pour dem jat bi mbir moom lañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ñaanal ñee dem yàlla na suñu borom xaaree àjjana ku gis xam ne lii metti na te am na ñoo xamante ne ñu ngi hôpital te seen waajur yi ajuñ te ne yoruñu dara te dañoo wax maanaam ñu nekk hôpital dañu leen jël en charge te loolu ñun gisaguñ ko te gisaguñ ko te loolu amut ndax nit ki mënoo ko jël en charge chaque jour ñoom ñoo dagg ordonnance ba tey tey dagg nañ ordonnance kon en charge bi ñuy wax dañ ko jël nañ ko jëfe te lu tollu treize personne ci koñ ñu génn fa àdduna ñu kenn teg seen tànk te ñu doon Sénégal nekk citoyen dafa ñaaw préfet ñëw fi fii ci kër gi préfet ñëw fi gouverneur ñëw fi kenn ñëw fi préfet euh, ci hôpital ba leen fii amul benn koo xam ne day liggéey suñu nguur. meeru Touba tamit. meeru Touba ñëw fi. gisuñu fi gisuñu fi kenn dal gisuñu fi kenn. ay mhm. ba lii daal si ñu mën a wax. mais Serigne Touba lañ liggéey ba lii daal leen ci kon lu gën a rafet maire sax war naa mën a yónnee ndaw ci bis bi mhm. mais gisuñu fi maire gisuñu fi kenn mhm. te Touba lañ dëkk kon maire tam ñu koy lancer appel xam ne ñun ay doomam lañ. na ñëw ni ñi tëdd ñu nekk hôpital ñu dem nag ñu ngi ñaan suñu borom xaar leen àjjana ñu dem tamit ku lu mën a dématal seen waajur te ñu démal ndax ñoom ay soutien famille ñoo xam ne tey liggéey rek lañ doon def pour dimbali seen i waajur te yaakaaruñ leen te yaakaaruñ leen lu liggéey ak liggéey sëñ Touba kon ñooñu tam leen jàpp mais ñiy tëdd nañ ci gaaw ñëw def seen lox fexe ñu jóg mën a delloo seen activité loolu lañ leen woo mais amul kenn ku ci dugal gum xaalisam ndax hôpital lépp lu fa ne rek ñu ñoo ko dakk waaw kay bàyyi xel ci li ñu wax. dëgg la sant yàlla bu baax. net na nag waaye sant rek. Eh, eh, yéen a def yéen a dem poroxaan rek am yéen a dem poroxaan. Mm-hmm. yàlla tamit dogal na mm-hmm. dogal bii dal na. Mm-hmm. ñaar ñi xam ne dem nañ suñu borom jéggal leen

démb foog foog de xanaa daanaka dama ne fi am daal daa mel ne ay nelaw lañ njëkke man nee na moom jékki-jékk naa rek gis deret ji di sotti daal xam naa waxam sax man la nga xam moom daal si bis la tàmbale bis bi dañoo romb bu ñu rombee safaru bi daal di fent kottu la bu jëy jëy ki leen daje ak naa nag tiit loolu wax dëgg yàlla buñ ko déggee yàlla juf mi wootee moom ñëpp tiit moom waaye nag ñoo ngi dollee sant yàlla ndax koñ bee mu bokk xale yi ñoom ñëpp a ko bëgg amul tim saareet laa la wax fi mu ne hmm. sant yàlla daal yàlla def hmm. xam naa daal gën ndax mën naa gën a metti hmm.